bis bu mag la muy wadjal magal ñu ñaan suñu borom nak yobbu ñu ci ak jamm te lepp luñ fa yëngu ak lu sëriñ bi gëreem su ko défé tay nak seen jotaay bi nga xamné jotaay wadjal magal la ñu ngi fas lu ama am solo mu jëm ci sëriñ bi ak colonisation ndax ku ne xam na ne jamono bi seigne touba woote yoonu murit mbooloo mi di ko wiisi nangul ko lool boobu dafa dajeeg tubaab bi yilif réew mi te bi muy yilif réew mi it nekkutoon ne aspect économique kese kese kese moo ko fi taxoon a ñëw waaye dafa ñëwoon pour assimile waa réew mi te mooy def leen i tubaab yoo xam ne donte seen der dafa ñuul diine sax da koo indaale ngir fas yéene ñim fi fekk buñ dee ay ceddoog buñ dee ay jullit moo xam nuñ leen mën a tuddee ak lu ñuy woote woo mu dugal leen ci beneen diine boo xam ne mooy diiney boppam moom sëriñ bi it yàlla dogal mbooloo mi wuyu ko te yit njëkk mbooloo mi di ko wuyu am na ñoo xam ne mbooloo ba mu leen wuyu see ñu dooni sëriñ dañoo jàmmaarloog tubaab bi xeex ak moom song ko song yi metti ba bi sëriñ bi feeñee gis mbooloo mi jublu ko jublu gu yéemee yéeme tubaab bi li muy jàpp mooy fa ñee jaaroon fële sëriñ bi jaar fekk sëriñ bi moom ku ne xam na ne yitteem leneen la woon pas-pas leneen la woon waaye du ne dafay jàmmaarlook ñoom ci wàllu fetal wala ci wàllu ngànnaay te loolee wax na bëyit boo xam ne moom sëriñ bi dëppoo naag loolu lool te mooy lim leen waxoon ca yaa jumlatan ne leen wax gi ngeen di wax ne damay jaxaar wax ju wér la wax ju dëggu la waaye nag indi li wajilaahi jàlla ujaahidu man maa ngi jihaat te jëm yalla kese kese kese motax moy jihad inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan hadiman wal muhiminu shahidu sëriñ bi wax ne sama jihad gi ci ñaar la ko teg sëriñ tubaa ngi jihaadee xam-xam mi ngi jihadé ragal yalla li moy li nga xamne kep ku ko top te nangul ko sëriñ bi li kep lay yek ci yow te xam-xamu diine ku mu fees dell ci yow nga jëf mu dëpp ak moom yàlla baaxee la nga ragal suñu borom ku dul yàlla du la yilif defal nga def bàyyil nga bàyyi kenn nga ciy sédd mooy suñ borom subhanahu wa taala looloo waral taalibe yi jeex tàkk ci sëriñ bi parce que lu tax sëriñ bi lim leen di def loo mooy la dëppoog la seen borom gërëm lim leen di bàyyiloo it mooy la nga xam ne seen borom moo leen ko njëkk a bàyyiloo te bu taalibe gi matee dëgg dëgg dëgg balaa laa sëriñ bee digal balaa laa sëriñ bee tere lam la war a diggal da nga koy xam bu wér sax ca lam la war a tere nga xam ko bu wér won ko ginnaaw te lii mooy ku sëriñ bi noppi ci moom. lii nag bi mu dajeeg tubaab bi mu am lu mu bëgg ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi jafe-jafe faaw dana am te am na ñum fi fekkoon ñoo xam ne seeni daraja ak seeni mbooloo ña ngay tas di fekk sëñ Tuubaa te neexu leen woon moo tax jaxase gi bari woon lool ba mujj gi ginnaaw bi sëriñ bi wootee Mbàkke Kajoor sanc Daaru Salaam sanc Tuubaa

mu ñu tuba bi li la jàpp yëngatu gi nga xamne jangaleem njàngaleem tuba moko moo ko yëngal mi li gën moy nañ ko génne génne biñ koy génnee moy tax ñu faté lepp lo xamne ne bi jàngale won nako ci rew bi kon da melni tuba bi bëggutoon jangaleem sëñ tuba tasaro parce que xamne ne jangaleem sëñ tuba kum jeex tak ci yow kudul yalla yàlla du la yilif moo tax faral di wax na tuba ba bañon loolu ba bisu yalla tay bi mi ngi fi sëriñ tubaab mi nga xamne mo doon def lool ba bisu yalla tay bi mi ngi fi te bind na lu ko tegtale lam tanxu nii muqadamatul mawti waxat rafaqtu bi baqaa i sawti sëñ Tuubaa nee na tàmbalik dee du jublu loolu mooy du ma sukuraat kon sëriñ bi du ko fiy jóg xam-xam ba mu doon yekk ca taalibe ba tax tubaab bi mënul ci ñoom dara amuñ genn complexe seen digganteeg moom loolee ba bu bis yàlla tey bii xam-xam boobu leen sëriñ baa ngi koy doot ci képp koo xam ne dékk na ndabam li am solo koy mooy dékkal sa ndab jariñoo ko dadi yewu jar nek borom xam-xam su ko defé xam lila war ci kaw suuf ta wessul kudul yalla dula la yalla lay deflo yalla lay bayilo ndax djublu way kep nga am moy sa ngeureumal borom izil muridu la yuridu abada ghayra rida rahman xeesu qasada sëñ tuwaa koy jangal ci masaaliku ko dina neena talibe bi pire dib murid ben yitte kep la am ben beug beug kep la am ben namel kep la am te moy ngeureumal borom lii nag lu dérangé woon colonisateur bi la mu jéem ci jéem te sëriñ bi résidence surveillée moo tax sëriñ bi ak xarañam foo ko ci weesu na ko ndax bu ñu nee résidence surveillée baatu français la waaye li muy tegtale mooy tubaab bi ci boppam moo doon jéem a surveiller sëriñ bi fexe gàllankoor ko ci xam-xamam tasaaroo ay bëgg-bëggam ci réew mi tasaaroo waaye fu mu mujj tey ana tubaab bi lu mu fi moomati tubaab bi lu mu fi yilifati xanaa ñi sàggal waaye sëriñ bi tey naka mu tey ñaata topp ci ginnaawam ñaata ñooy ñi nga xam ne jaral na leen seenu bakkan seen alal du ko fekkee kon daa mel ni am na ndam ndam loolee nag lu mat a sàmm la ba jataay bii fii ñu koy amalee tey muy Masaalikul Jinaan ci digg ndakaaru loolee tontu bu rëy a la ndax ku sax xel dem ci guddi yi nga xam ne sëriñ bi am na ko fii bi mu bàyyi koo ndar gannaaw bu ko attee seen attee tappale yooyu ba génne ko yóbbu Gabon jaar na ndakaaru dund fi tumuranke goo xam ne gu jéggi dayo la ci néeg bu doy waaye tey pàkk bi ñu toog tontu la ca loola ngir wane sëriñ bi fa mu tegoon dundam fi mu tegoon tànkam yàlla suñ borom mi nga xam ne moom la doon jaamu te di ko sellal yoon saa saa mi nga xam ne moom la doon liggéeyal wax dëgg yàlla ku xool fi mu tegoon ay mbiram di nga xam ne wax dëgg yàlla foofoo mat a tegi mbir te mat naa bàyyi xel. su ko defee nag colonisateur boobu nga xam ne ba bisu yàlla tey bii suñu pas-pas la soxla suñu yitte la soxla suñu lépp la soxla niki noonu itam sëriñ bi kum kum yéegee képp koo xam ne tànk na ci ndam bi xam-xamam sa pas-pas sa yitte sa xam-xam say jëf du màng jëm fenn fudul foo xam ne fu lay may sa ngërëmal borom la waaye ku sàggan tubaab bi ba bisu yàlla tey bi mu ngi coloniser soxla sa xel soxla say xalaat soxla say jëf waaye nag ngir jariñoo la ba keroog ngay faatu waaye sëriñ bi fi mu lay jaarale ak yee gi mu lay yee lépp ngir nga jëriñ sa bopp la té buñ nee jëriñ sa bop rek doyna sëkk ci nga nekké fi la taxoon sa borom indi la fi té lu mata a xel nit ñu bare bare bare bare sanku nañ lan mo leen sank moy dañoo faté lan mo taxoon suñ borom waccé leen ci kaw suuf té yalla daf ñu fay waccé pour un but déterminé té mu wax ko mu leer nañ khalaqal mawta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla suñ borom dafa sak dé sak dundu ngir nat ñu xol kan ci ñun moo gën a rafet ay jëf ca jëf mi ngi rafetee ci mu doon jaamu suñu borom moo tax wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni yàllaa ne bu sàkkee nit ak jinne lenn képp tax mooy ngir ñu jaamu ko boo sàgganee nag ka nga xam ne moom ab colonisateur la dafay dox sa digganteeg jaamu gi dox sa digganteeg jaamu gi sell te bu sellul yàlla amu ca soxla su ko defee nag sëriñ bi jox la xam-xam tegtal la njub tarbiya la tarxiya la ba nga xam ne kenn du la yilif yàlla lii ba bisu yàlla tey bi ci liggéey bii moo tax a jóg yoonu murid ku ci yeewul nag boo xefee doxe noo xam ne daanaka mën nga ne colka gi mën naa murite kàddu gi mën naa murite waaye ku lomb pas-pas bi ca biir moom doo fa fekk sell doo fekk mbaax doo fekk yiw ndax ni tubaab bi xarañee ci wàllu naxe ni tubaab bi xarañee ci wàllu jël sa yitte jëmale ko feneen fu dul ci yàlla waaye ku sëriñ tubaab ñor te nga gëstu njàngaleem yàlla baaxee la kilifa goo xam ne mat na kilifa te mooy sëriñ bu mat sëriñ bu la yar yéegale ci yoon wi ba nga àgg ci sa borom di nga mucc ca lool moo tax colonisation di lu fiy jóg kii da lay coloniser delloo yàlla kii da lay coloniser jëriñoo la ci àddina mat na ñoo xam ne nag ku ne ak mbubb mi nga xam ne moom la sol di ca liggéey su ko defee nag sëñ Tuubaa ak képp koo xam ne teg na tànkam fa ko sëriñ bi tegloo ci sëriñ si képp kuñ coloniser dañ lay goreel ci lépp loo xam ne jaamu bakkan la topp seytaane la bànneexoo bànneexu àdduna yi la te mu lay jural musiba sa diggante ak sa borom yii dafa la ciy musal su ko defee nag kee nga xam ne moo aw ci yoonu càmmoñ moom lii pas-pasam mooy jël sa yitte jël sa doole jël sa xam-xam waaye nag ngir lan tabax àddina moom moo tax benn borom xam dafay wax ne képp koo xam ne yaa ngi sànq sa diine ngir defar sa àddina nee na ku la gën a perte amul képp koo xam ne yaa ngi sànq sa àllaaxira di sànq sa diine ngir tabax sa àddina yow perte nga parce que àdduna di ngay tabax même bu tabaxoo bisa ngi ñëw nga génn ko dugg ci barab boo xam ne diine la fa war a jariñ te maa bëgg sa diine kon ba fa te yàgg-yàgg nga àgg fa mu gën a perte nag man baa a diinuhu li duniyaa xayri yi koo xam ne dafa sànq diineem màbb diineem waaye duwul sax ngir tabax àddinaam waaye ngir tabax àddinay keneen te loolu yaa ngi koy gis waaw koo xam ne ay coonoom ay yëngatoom daanaka fii la koy defee waaye mi ngi baaxalal keneen àddinaam waaye sànq nañ seen diine yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee nag lii mooy jàmmaarloo bi doxoon seen diggante te jeexut jeexut ba bisu yàlla tey bii ka bañoon sëñ Tuubaa mi ngi koy bañ ba léegi ka bañoon ay jàngaleem jolli nit ñi jëriñoo ko jëfe ko ba bisu yàlla tey bii mi ngi koy bañ te di ca gàllankoore des na nag ci sa pas-pas des na nag ci sa yitte des na ci sa bëgg-bëgg su ko defee nag nga mën a gëstu njàngaleem sëriñ bi mën a jëf mu dëppook moom mën a wax mu dëppook moom mu jural la sa ngërëmal borom fii ak fa njëm bu ëllëgee moo tax ma ne colonisation du lu fi jóg bakkan mi ngi fi seytaane mi ngi fi bànneex mi ngi fi àddinaa ngi fi te ñii mën nañu ñoo yilif ñu baree bare bari ci àddina te ñooñee lii doon seen yitte mooy yilif la yow coloniser la jeex tàkk ci yow ba lépp loo wax di ko jëf foofe képp la jëf sëriñ bi nag teg fi ndam bi xam teg fi mbaax teg fi yiw teg fi ak defaru nga xam ne loolee bu duggee ci yow ba jeex tàkk ci yow kee moom du mën ci yow dara ak lu mu jéem jéem jéem jéem jéem waaye kii fi mu la jëmee mooy ci sa ngërëmal borom yàlla nañ ko yàlla fayal su ko defee ñu ngi tënk foofu kàddu gi di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.